Bonjour, comment ça et comment la santé lépp loo xam ne jëm na ci wàllum wér-gi-yaram beneen yoon ak limon limon bi nga xamee ne dafa baax lool ci suñu wàllum wér-gi-yaram ndax dafay faj li nga xam ne moo di infection képp ko xam yaa ngi am limon daf ciy baax loolu te limon dafa am moo tax tamit dafay leeral gis-gis kon képp ko xam ne si na sab gis-gis xaw na lëndëm del jël li nga xam ne moo di limon baax na ci lool limon dafa am li nga xam ne moo di vitamine B1 te vitamine B1 boobu moo tax dafa baax ci yaram te day faj eh, limon nekk na loo xam si ne lu am njariñ la te dafa am vitamine C C boobu dañ naan bip na am nga vitamine C dafay baax lool kon limon boo ko dee jël yàlla mën na laa musal ci ay feebar yu bëree bëri limon dafa baax tamit ci seere kon koo xam ne tamit yaa ngi seere del jël li nga xam ne moo di limon ni nga koy jëlee nag mooy da ngay daal di jël kaasu ndox jël ñetti doomi limon pàccal ko ci di ko def suba ak ngoon dafay daal di dimmi seere boobu kenn tamit da nga amee nopp yu riir del jël limon di ko dagg pàccal ko ci nopp bi tamit da nga ciy daal di gis njëriñ li nga xam si ne am na ko ci bu fekkee ne tamit da am wee yu dagg del jël ndox limon di ci dugal say bee da nga ciy daal di gis tamit eh, mu limon dafa baax tamit ci taab bu fekkee ne tamit dangay taab dalay dal lu bëree bëri del jël euh, xobu limon jël ci lu tolloog juróom-ñaari xob nga def ko ci litre ndox da bi di ko da ngay daal di gis angine boobu ni mu ci amee njëriñ wala ci li nga xam ne moo di sofe bi nga xam si ne baax na ci euh, kon jërë ngeen jëf mbokk ñu topp ci 24actu point com loolu leen indi loon ci suñu di leen jox dig dajee ci beneen español.